sëñ tubaa nee na yow ab daf nga te soxal léerut waxaat na faneen ni man sann annaka tuhaakil bashara wal jinna wal malaka lay yu bashara ku njott rekk ne nuroo naag mbindéef wala nuroo naag malaika wala jinne wala jinne yow mal xiyaam kenn du la bégal yow adduna ak alaaxira doo bég mooy mooy taxee di dikkal na la am na foo xam ne sax laqat gii si yàlla jëfandikoo bani yëg leen ni kat laqat man na laahu alal mu'miniina isbaxaat fi mu rasul mi am si laqat la sëñ tubaa jëfandikoo laqat man sannal muqaffa muhammadan yohaakii walidan xat ma daa aw sa yuladu laqat giiñ naa ci màggu yàlla gi ne xat sa dëgg-dëgg kenn dàqu te wax lu dul dëgg maanaam mooy wax na lu dul dëgg Sëñ Tuubaa yow ni nga baree teggin nga tàmbali nii tey ay wax giiñ naa ci yàlla ni sa dëgg-dëgg kii wax na lu dul dëgg kan ku ku wax lu dul dëgg mu ne ki nuróo la yónente beeg kuy jur baa ku nuy jur wax na laneen lu dul dëgg nuroo wut ak kuy jur nuroo wut ak ku ñuy jur kooku ko man nuroo wut ak ku ñuy jur laxat maana man sanna man sannal muqaffa muhammadan yu xaakii walidan xat madaa aw sa yuladu baram tuwaay wax buñ ko diglu woon rek lépp baax sëñ Tuubaa ndax loo ne moom la ko yàlla xamal li tax mu xamee fii kat dimension bi li tax mu xamee fii yonent bi xam nga lu tax dane bokkuwuma ak nit ñi nit ñi ñii dañoo jàng yonent bi ci siira ñii jànge ko ci téere yi mm. ñii jànge ko ci ñi koy jàngale man na di mu maak ñoom noonu bi ma jàngee yooyu ba nopp ba raw ci ñëpp yàllaa ma wal boppam ba ñëw mu ne man mi def yonent bi ni mel te ku dul man xamu ko maa lay xamal dëgg-dëgg mbiram mi ngi nii xamal gi ma la koy xamal na ngir nga xamee ko ni ko kenn xamewut mooy dama bëgg nga xamle ko ndax yow rek ko mën a xamle sim bi ne xoloo mii wa xirfaanii bikallaahu xaadaha ilayya fa antal taxaa wa samay saxum xoloo mii samaw xamiinu yonent bi ci lu mën a bind wa xirfaani ak sama xamiir yonente ki lundul bind mooy mahrifa mhm. bàyyikuwul ci téere yi bàyyikuwul ci ustaas yi mhm. bàyyikuwul ci gàmmkat mhm. moo sëñ Tuubaa fu mu jógee mu ni xaadaha allahu ilayya yàllaa ma ko wamatal man yàllaa ma ko xamal man kooku dana bokk ak mu mel ne dañ ne ko lu tax yow yàlla beral la xamalal la boppam rasulullahi ba yow xamee wu ko ci mbindeef yi mu ne parce que alayya li wajhillahi jalla jalaaluhu lakka dara am daahul masaa yaakatar fahu daf maa gàll ma war koo xamle moo tax mu ne inna lisaaniya yubiinu maxtafaa inna bayaaniya yubiinu maxtafaa min mux gisaati silmasaayal muxtafaa inna inna bayaaniya samag leeral man Sëñ Tuubaa mm. bokkut ak leeralu gaañi sag leeral lu mu mm. mu ni yubiinu mooy liy feeñal mm. maxtafaa la nëbbu min mux gisaati silmasa yal ci mux gisaati rasulillahi kii maanam ya mayam yu rëy ya ya nëbbu te kenn xamu ko lamin wi lay leere ahmadul xadim kaddu sëñ bi kon mujisaatu yonent bi la sax mujisaatam la lisaanu mantiqiya yubdil xaqaa wa innahu kulla baliixin daqaaji sax moo la koy wanaat lisaanu mantiqiya làmminu samak tudd ci moom yubdil xaqaa mooy feeñal dëgg gi ci moom looloo tax wa innahu li balle ci sama mbind kulla baliixin ñi gën a éloquent dàqoon a wax dàq bind gën a xam raqaa da leen di yokk <laughs> yaa ngi dégg ñoom lay yokk waxuma ñii ñooña yu xaati bu nii maa xiida lii bim daxan na ko ma diixan hajiban mufhiman faiqa rahiya li ma yàlla wamatalal boppam ba ko wut ci téere yi xamale ma ko boppam ci rasulullahi ba noppi digal ma tagg ko bi mu daxan na koo mooy damaa digal ne ma yow yow laa digal nga nga wane ko tagg ko yooyu tagg man diixan ay tagg la yoo xam ni hajiban da yéeme mooy extraordinaire romb nam xel waaye mufhiman mufhiman moom day wedam loo mooy ku wedam mooy ku dem ba amatoo kàddu da ngay jommi waaw sëñ Tuubaa ñan lay weddam loo xanaa sama classe gi doog a jàng mu ne déedéet hmm. faayi xarrax yi borom gis-gis yu kawee ña kawe ci xam yonent bi hmm. ak ci gën koo dégg hmm. ñooña nag bu sama mbind ñëwee ñooña lay wedem loo eh. waaw waaw waaw loo daaneel mbër yi nu muy def suqi waaw ah, loolu moom sëñ Tuubaa ci la ngelaw buy daaneel entre la woon ci maa ngi ci isbahan sa fiim ras minam siim xam siim bi rek ma ci duggee yaa ngi dégg waaye léegi waxu ak malu bara goog nga wax moom mu dugaloon foofu mm-hmm. ci nim ko xamee moom mm-hmm. nekk te melawu nitu yonent bi mm-hmm. da koo nuru nit ñi waaye bokkut bokkalikoo nit ñi lii dafa mat a xam ma jox la exemple yi ma lay wax nag yëpp ay addis yu wér la yoo xam ne bañ mu gëdd a tax du ma indi addis waaye dama lay wax bëtu yonent bi nii da koo nuroo léegi nit ñi bët lii may wax nag du moo gisa de mooy bindam mooy bindam dëgg la bëtam nii ku yor bët da koo nuroo léegi yow rek waaye bokkaliku ak yow premièrement mooy bëti mindeef yëpp mënta gis ginnaaw fii sax ñaaree ku fi gis ku fi wax ku fi déclaré ne da ngay yor bëti ginnaaw ñu am lu la waxal. waaw moom daañu la dugal ci ruq ñu dugal la ci ay yëf. waaw yaa ngi dégg <laughs> naturellement nag. Hmm. bëti yonent bi. Hmm. ni muy gisee li ci kanamam. Hmm. noonu lay gisee li ci ginnaawam. waaw moo tax sëñ bi na ko yara wara yara wara awa amaam. waxañu du ko kaanat tanaam waxal bu xóolam yanami bu daan defar sàppe ya du gestu nii lay def te yow borom moom mu wert mi jege sil xaw ngaa sori borom moom mu ñu ne defaraata say tànk ndax ni muy gisee ginnaawam lay gisee kanam yooyu bët bokkoon naa ak bëti bëti nii. déedéet mënut a yem. Eh, yaa ngi dégg. ci loolu naturellement bëtam. Mm-hmm. noon noonu la mel. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ba noppi bëti nit ñëpp. day nelaw. xam nga nelaw piir bët du ko def. xol a koy def. dëgg la bët day dimbali xol xam nga tax ngay xam ne bët nelawut. fi toll nii boo la boo gëmmanti wutoon sa fooy nelaw jëkk-jëkk ne naa gëmmu hmm. boo doon gëmmu juróom benn waxtu yi nelawoo boo gëmmee it lu waaye wax da nga ko dégg nga ko dégg buri yëpp nga dégg mën naa da nga dul gis rek ci hmm. ngay xam ne nelawoo waaye fi bis boo jàppee nelaw hmm. bëri bu xasee gëmmu da nga koy boole pertaale lépp xol bi day dem day dem ci lu wër mooy buuru cër yi waaw kay yonente bi ne tanaamu xay naaya wala yanaamu xal bii bët bi dina muuru waaye xol ba moom du nelaw léegi nag ku yàlla bindee bët te ay bëtam la si ne kaanat ba tax boo ko dee firi doo wax ne waxay na ko bëtam ya kaanat nekk na tanaam di nelaw mm. waaye waxal bu xal lam yenam da nga naan waxay na ko bët ya mm. mm. ba lam yenam yi du nelaw noonu nga koy firee mm-hmm. yaa ngi dégg waaye bët yëpp de bët yëpp bu nelawee rek la nelaw kay benn la <laughs> laa tax la nelaw benn la ci lu mm-hmm. loolu kon yooyu bët xam nga bokkut ak bëti kenn te loolu du moo gisa de hmm. mooy bëtam mooy bëtam salaa salaam dëgg la rasulullah salaa salaam hmm. aw ñaqam nga xam ne ñun ñii hmm. ku ci ñaq-ñaq yu bari sax léegi sax xet tàmbalee soppi ko nga bëgg daal di dem laal ndox waaw lu mu gën a ñaq xetu parfum bi raw misk di gën a xeeñ waaw parce que yaay Aïcha daan na sàcc ci ñaq li dañ ko daan di ko gëttoo te boo ko gëttoo foo romb ñu xam ne ñëw nga xam yow ñëw nga waaw bul defe ni nag xetu ñàkk yonte mooy xeeñ misk de déedéet misk a koy xeeñ moo dàq misk misk mm. mooy xeeñ xet ga <laughs> misk mooy xeeñee ji mooy xeeñe ni xetuk <laughs> sang ba salaa salama macha allah waay est-ce que waaw googu ñàkk kon moom ñàkk nit ñi ñoo bokk <laughs> te moo ne day boo toogoon fii di ñaq eh. nga séen ko muy ñaq ci wàllu bët nii li nga gis ñàkk la tudd ki ñàkk la tudd da nga naan kii nit la ni maanaam ndax mi ngi ñàkk maa ngi ñàkk mm-hmm. waaye bu noppee résultat yi ñàkk yi moo lay wane ñàkkam du sa ñàkk waaw ah, du sa ñàkk ci lu wër yaa ngi dégg alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. gis nga noonu yi noonu yi la mm. nopp ba mel mm-hmm. nopp nopp yiw la dégg nga suñu banaan li usni xayri maaxi tiraay mm-hmm. fekk alxuraan ne qul huwa usnu xayrin lakum mm-hmm. yaa ngi dégg gis nga yonent bi mm. sallallahu alayhi wa sallama tiflitam boo demee ci addis yi am na tiflitam suñ musa suñ suñ musa yóbbu ci benn teen ci Madina ci mën a waral moo mu dàq ci teen yëpp moo moo moo dàq lem tiflit bi rek la naturellement teen booba ci Madina ci mën a waral ñëpp dañoo mu ngi di xëccoo ndox ma du mu ko gisaat tëflitam la mhm. yaa ngi dégg mhm. mos nay nekk benn seel ku mhm. bëggoon seel la nii ci saayir am koo xam ni eh, am ñu amoon ci ay gan ñu ñaan ko ci seel yi moom leen di may ci li des mu ñu ko ci li nekk ci sa gémmi ngi lañ bëgg ba mu leen ciy dindilee tuuti may leen ci ña ci jote mus seen ngir dund seen laame mënatut a wax lu araam mënatut a wax lu bon te seel naturel la ndax seelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek yaa ngi dégg Anas ibnu Maalik ngi nettali ci bisu aasooraa ñi daan indi seen liir yi mu leen di ñaanal comme ci musa eh, tifli tam mu tifli ko ci sa gémminu liir mm. dana dem ay weer yoo xam ne du xiif du mar laa ilaha illallah alayhi salaatu wasalaam lii lañ war a jàngale ci yonent bi ban xam ne yonent bi ku ñuy mm. sopp la ku ñuy bëgg la yonent bi bokkut ak nit ñi dëgg la yonent bi basarun waaye laakal basari laakal basari yaa ngi dégg mm-hmm. ñun nit nit koo gis mm. buy dox day jéegu waaw teg tànk tegaat tànk yonent bi du ko def suufay lemu naturellement suufay lem waaw di ko fekk si musaan dëgg ci xeer tam xeer wa day nooy ba mel ni witteen ba mel ni witteen mhm. loxom ba lum laal mm. dootul yemateeg lum laalu naturellement la loolu alayhi salaatu wasalaam yëg nga ni yonente bi musaan a dugg fu lëndëm ni muy leere ba nga mel na nga faa taal projecteur mm. du moo gisa de mm. naturellement ab bindam la waaw parce que nee nañ bés yaa Aïcha mos na toog pusoom réer ko mu koy wër gisu ko mm-hmm. waaye bi yonente bi sallallahu néeg bi rek daa gis puso bi la ca saase mm-hmm. am takk beer ba basin bi nag kaana yusilluhul xamaam mm. yaraa waraa wa amaam kaana yusilluhul xamaam mu nga xam ne maanaam mm. niir yi moo koy keral waaye yonte mos a am takk ne min haa tajannubu subaab mm. xan gis mi hi maha siyaab kasaaka tasxiilu sihaab billahi muulil maxnami min haa tawassulu tuyuur bihi lahu staka bahiir wan fajaral maa un namiir min yeddi si takkaru bi xam nga ko andi wen du ko tong du mos am takk ndeer mooy takk mi ngi jógee ci jant bi ak weer yi ndax takk ndeeru bëccëg jant bee koy waral waaw takk ndeeru guddi weer wee koy waral mm. jant bi nag kim mën a jox takk ndeer mooy kim ëppug leer mm-hmm. yaa ngi ñun ñëpp leeru jant bi dafa ëpp sunug leer moo tax mu nuy jox takk ndeer weer wi it mën a jox takk mooy ku mu ëppug leer mm. leeru rasulullahi nag daa ëpp gog jant bi gog weer gi ndax ca la cosaanoo moo tax da leen di mëdd ba ñoom mënuñu koo jox takk ndeer ndax leeram moom moo la ñuy niitoo ñoom ci seen bopp ñoom ci seen ci la ñuy niitoo waaw min nuur yi ku la nuurin saatin bi sax nuuru nujoomin wa nuuri samsi wal xamari wal xamari ci lu wër leeru bidiw yi daa jóge ci leeram mhm. nuuru samsi leeru jant bi daa jóge ci leeram mhm. wal xamari leeru weer yi daa jóge ci leeram mhm. leer yëpp jóge ci leeram moo tax mënuñu ko jox te loolu mooy ab bindam naturellement waa léegi kon kii boo bëggee taxaw jox qul innamaa ana basarun mislukum yuuhaa ilayya bëgg a rey nit ñi ci nit la comme nun rek alxuraan a ko wax nit la comme nun nit la ku nuroog nun ngir looloy suñu yërmande ndax bu ñëwee woon dëgg dëgg aqiiqa bi mu doon ñu mën a jëfandikoo yonente bi ñu man a jëflanteeg moom dëgg la lu leer wax sëñ Saliou cey waaye dunun te hmm. dunu moom sallallahu alayhi wa sallam maa ngi dégg sallallahu alayhi wa sallam kooku

Mm-hmm. aaya 164 mm-hmm. yàlla nuy présenté Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ci laqad manna allahu ala almuminina isbaxata fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kaana min qabl la fi dalali mubin mel na ni laqad manna allahu ala almuminina laa daaneen ak isbaxata fihim rasulan min anfusihim mm. kon naa ñëw ci troisième bi gaaw